bu dee discours président ci ci ci Nations Unies jàpp naa ne dafa ñëw ci jamono boo xam ne mën nga wax ne tekkaaral tout dafa amoon ci àdduna bi muy doxe dafa mel ni nit ñi dañu dañu dañu nangu woon li ñu leen teg nga xam ne mën nga wax ne euh, at yi yëpp mën nga wax ne àdduna ci benn giseen rek lay doxe walla moom la ñu bëgg mu doxe ko néewoon na président yoo xam ne yi yëkkate nañu kàddu gu sofaanook loolu loolu géej nañ ko dégg waaw discours tonalité discours bi mu def géej nañ ko dégg ci président de la république en tout cas ca Sénégal discours yooyu ñu ngi ko doon dégg ci jamono yu yàgg suñu représentant bi nga xamee ne Medoune Fall ne woon na fa ci yenn question yi mais fii alors euh, wax dëgg yàlla question yu mag yëpp abordé na ko te abordé wu ko ni ko réew yu mag yi bëggee daf ko abordé ci li nga xam ne moo nekk ci intérêt Afrique wala du ma wax sax Afrique mais intérêt réew yi nga xam ne ay réew yoo xam ne yi dañu amul doole nga xam ne euh, réew yu mag yi ñoo leen bëgg yobbuwaale ci seen gis-gis alors waxoon naa defe naa na ci benn jotaay ma ne président bu ma ko observé li ma gis mooy président bu mag dana confirmé wu ci kanam. macha te jàpp naa ne discours keroog bi confirmé na. wane na ko effectivement wane na ne président bu mag moo ngi tabaxu. ñun ñoo war a nekk ci gannaawam. Ah, ngir tabaxu googu nga xam ne moom lay tabaxu alors. mu mu mu mu yomb ci moom ñu accompagner ko bu baax te réew mi sax ñu ngi koy def parce que gisuma kenn ci ñi ma ñi ma ñi ma déggu koo xam ne kii ànduloo ci tonalité discours bi mu def même ñi nga xam ne bokkuñu ak moom sax féete politique alors feddali nañ ko te question yi essentielles yëpp wax na ko mooy àdduna bi ni ñu ko yore te xam ne teguwul ci mandute mënul wéy koom-koom bi am ci àdduna ñi am doole rek yore ko nga xam ne question yi am ci àdduna tey njubadi gi yëpp foofu la tab tabaxawu loolu mënul wéy euh, exception culturel kenn ku ci nen ni nga gisee sa àdduna nga dundee ko noonu nga xam ne dañ la war a bàyyi yaatal la ci nga dundee ci noonu tubaab bi mënuñu ñu wax nan la ñuy dundee parce que nun noo leen gën dundin mën nañ ñu euh, raw ci affaire technologie ak yooyu waaye xayte ak gisuñu àdduna alors li ñu ci am ñoom amuñu ko ci donc nu bëgg dund suñu dund gis na yii mooy valeur yi nga xam ne moo nu accompagner ngir nu dund suñu dund alors loolu jàpp naa ne ci question yu mag yi la yi ay Ahmadou Mokhtar Mbow yàlla ko yàlla yërëm bu yàggul la génn àdduna li ko jëlee UNESCO wala li ko fa xatal ba mu jóge fo ba mu déclaré ba mu déclaré exception culturelle ci la bokk nga xam ne àdduna bi ñu bëggoon a tabax ba mu teer ci ci nouvel ordre bi nga xam ne moo indi mondialisation bu mujj bi mooy ñëpp ñu dugal leen benn mbuus wal leen ñu nekk benn muul bu fekkoon ne muul bi baax na sax nit ñi fekk si leen waaye munu ñu wax ne bàyyi leen seenu mbaax ngeen ñëw ci li nu nekk seen toskare gi alors loolu ak lu ñu am am doole loolu mënul wéy nun keñ dañu war a am ambition parce que am nañu projet social bi am nañu projet civilisationnel bi ngir seen toskare googu ñu ne ñu fexe ba ñu génne ci ngir àdduna nekk ci jàmm alors jàpp naa ne discours président ci question boobu bu ànd ak audace la parce que ñi ñi jiitu woon question boobu dañu ko daan raay raayal parce que dañu ko lëkkale woon ak ni leen tubaab yi di gisee ni leen tubaab yi di gisee dañu ko lëkkale woon aussi ak question économique bi ak accompagnement bi ba tax na question yow daañu daawuñu ci bëgg daawuñu ci bëgg euh, yegg fenn fi mais jàpp naa ne le président wax na ci la mu ci war a wax mais question bi gën a rëy mhm. nga xam ne moom la feddaliwaat muy ay principe yoo xam ne naka jekk moom musa sanc suñu réew mm-hmm. muy question palestinienne bi mooy xam ne tant àdduna réglé wu ñu ko jàmm du am te réglé bi weesuwul kenn ku ci ne li nga xam ne Nations Unies moom la la cëral Nations Unies am fayda am taxawaay am matuwaay ngir jox la ko te mooy ñu am ñaari état yoo xam ne yi yu maandu la yu mën a dund kenn ku ci ne selon frontières yi ñu xam mënuñu bàyyi am réew mu amul frontière ñu ne lu ko dooleem may rek mën na ko jël mu lew ko ah, loolu loolu munu mënul continuer ci ci ci ci àdduna te Israël ni muy doxale mooy réew la moo xam ne mi lu ko dooleem may rek mun na ko def alors loolu jàpp naa ne ci ci ci jamono bi surtout ak question yi nga xam ne moo xew Gaza ak naan mhm. alors wax na ci loo xam ne lii moo tollook Sénégal deux deuxième deuxième point wala quatrième point bi nga xam ne bu am solo la mhm. mooy ñun yàlla def ñu dimbalul woon ci espace u Afrique de l'Ouest gi mhm. ñu am si modèle intégration boo xam ne même bu fekkee ne euh, amuñu ci lu ñu bëgg yëpp mais ci yi gënoon avancé ci Afrique ci la bokk mais question wu Sahel bi ak ni nga xam ne réew yu mag yi dugg nañ ci transformer seen seen seen seen seen ñàkk déggoo ak foog na ñun waruñoo moom suñu bopp toujours dafa war a am réew mënu moom alors loolu moo indi question yi nga xam ne feeñ na ci CEDEAO feeñ na ci espace u Sahel bi nga xam ne mën nga wax ne am na fi ay question yoo xam ne ci ay réew sax dañu ko toxalee ci ay réew yu andil leen ko mais question yooyu amuñu ko Burkina Faso la fay xew boo laajee burkinabé yi mais dañ da duñu duñu xam fu mu jóge parce que amu fa amu fa amu kuréel yoo xam ne dañu am revendication diine yooyu dañu lu dañ ko fabriqué de toute pièces installé ko ci seen réew man nga wax ne xëy na li xew Mali am na histoire am na jaar-jaar mais li xew Burkina di di xew di xew Niger mën a xew Guinée mën a xew Côte d'Ivoire loolu amul dara lu ko lu ko lu ko expliquer lu mooy force yi nga xam ne dañu nekk ci biti dugal seen loxo ci suñu réew yi alors suñu réew yi war nañu delluwaat gannaaw waxtaan seen waxtaanu biir xool seenu déggoo ba nga xam ne lépp loo xam ne lii conflit la boo xam ne bi ay nit ñoo ko jëlee ci biir imposé leen ko alors conflit yooyu ñu delloo ko ñu leen ko joxoon bu ko defee conflit yi jóge ci biti bu ñu ko delloo rek ñun suñuy conflit interne yi dootu du diis te dinañ ko mën a régler ci suñu biir mm-hmm. heureusement te am nañu kuréel goo xam ne gi bu ñu ko saytoo malgré ko doxul ni ñu ko bëgg yëpp mën na fexe ba suñu jokkali ko gën a nekk lu yaatu donc globalement daal li ñu mën a wax mooy mm-hmm. discours la boo xam ne bii bu mag la maye na ko aussi adduna Sénégal positionné wu waat fa mu mës a positionné wu ci ci démocratie même réew mu ndaw la mais culture am ak jaar-jaaram ak valeuru ay nitam moo ko may naka jekk naka jekk ci question yu mag yi ci àdduna bi Sénégal daf ci mag mas di positionné wu donc discours bi président def keroog alors daf ñu dellu si waat si suñu positionnement diplomatique bi nga xam ne mooy positionnement réew mi loolu nag activité bu bari moo ko war a accompagner du discours kese société civile bi suñu démocratie ñi nga xam ne ñooy élite bi alors question yooyu la ñu war a jël delloose ko waxtaane ko utal ko ay kuréel yoo xam ne yi ñoo koy doxal bu ko defee suñu rayonement ak suñu suñu positionnement ci àdduna bi gën a jëm kanam mais du ñu bàyyi yooyu nga xam ne mooy question yu mag yi alors nekk ci yoo xam ne alors demul dëkkul vraiment alors loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy regretter booy seet sax nu ñu ni ñu vulgariser discours président ci biti tolloowul ak nu ñu ko toppatooyee fii ci biir réew mi et justement sax professeur maanaam li ñu gën a seetlu sax mhm. mooy discours bi maanaam euh, tonalité boobu mu am maanaam fii ñun si suñu biir réew rawatina en tout cas suñu presse bi maanaam gisuñu maanaam ñu jox ko gëddëm maanaam di ci waxtaane xool yan enjeu la waroon am ak yan perspective la ma waral lool. waaw mooy mooy mooy fi suñu réew tollu rek politique bu suufee bii rek moom la nit ñi tàmm c'est-à-dire duñu duñu duñu duñu waxtaan ci ci ci question yi nga xam ne mooy yi essentiel nga xam ne mooy mooy puus suñu réew moo koy yokk maqaama moo koy yokk gëdd kenn ku ci ne yaa ngi ci sa agenda politique même sa agenda boobu bu laajee sax nga suufeel lu kawe jaral na la ko bu laajee nga nga nga nga bot di loo xam ne lii lu baax ci réew mi jaral na la ko alors nit ñi nañu nekk ci di weer yi nga xam ne euh, taxu ko taxu ko bari solo alors loolu mooy li regrettable parce que euh, espace bi ñi am ñi am ñi am mission ñi am ñi am dañu ko bàyyeek ñi nga xam ne euh, demal ma ñëw rek. Mm-hmm. ci la ñu ne. alors bu ko defee jàpp naa ne loolu ci lu ñu war a corriger ci la bokk. mënuñu am opportunité bu toll nii. alors ci ci positionnement diplomatique ci suñu réew ak rayonnement alors euh, ñeneen ñi ci biti di ko di ko di ko waxtaanee. di ko di ko jox di ko jox dayoom di ko jox tolluwaayam alors suñu réew mu romb noonu rek ñu ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko mu jàll euh, question yu mag yi nga xam ne moom la posé ay question la yoo xam ne ñu war a continuer élite bi di ko waxtaane pas pour discours bi kese kese kese tàgg ne def na discours mais question yu mag yi nga xam ne moom la posé nan la ko Sénégal di entretenir ba nga xam ne dana amal njëriñ réew mi dana amal njëriñ àdduna mais dinañu gis ne sax am na ay mécanismes yu ñu teg ngir mu commencé dox alors jàpp naa ne loolu ci lu lu ñu lu ñuy lu ñuy lu ñu war a dabaatal la jàpp naa ne suñu diplomatie dinañ ci liggéey suñu élite bi aussi am nañu possibilité ngir question yooyu ñu delloose ko bu baax والحب ذو العصف والريحان institut Rayhan di jàngale alquraan arab ak xam-xamu lislaam yi di ko jaarale ci jumtukaayu xarale yu bees yi fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi mën ngeen fee sàkkoo xam-xam ci loxoy ñu xarañe fànn wile ngir bindu ci institut bi jokkoo leen ak ñun ci jokkookaay yi ñu leen bindal fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukadhibaan saaru système la daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom moom ñu am talent la ñu doon ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di forme waat ndax ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu ni muy yombe mooy dañuy songu ab waqfu waqfu la ñuy taxawal lan mooy waqfu fu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy fu loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme kenn na ko société mbay indile bénéfice mhm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bi man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii ci bii kon mbokku jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyaam képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom danga naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkk da nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala orangement Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak loo ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax 1000 francs dana bari ci moom amaana ab 500 la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole la ci kon am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii kon gaawal bokk boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko cee boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la